Mamadou Diop invité <laughs> moom a caaxal Mamadou Diop Decroix Decroix waaw nuyu la di nuyu waale Pape Lambaye Pape nuyu naa la waaw euh, ni nga lay fay soxna soxna soxna sukkay na mm-hmm. di teewaay bi nga xam ne teewees na ko ci palaatu mm-hmm. di nuyu Umar bun Xataab waaye di nuyu soxna si ma jigéen ak euh, ajaratu bétti mm-hmm. waaw rafetlu nan bu baax a baax Euh, teewaay bi ci plateau bi répp rek ngir fas yéene waxtaane euh, actualité te lépp loo ñu ci laaj rek ñu tontu ca tontu yoo xam ni dana leer nañ ba sénégalais yëpp yëg ni lii moom leer na déedéet waaw ñun dañuy dañuy tontu da di tontu loolu laaj rek dañ koy euh, léegi dañu bëggoon nga wax ñu mm-hmm. ci keroog li xewoon ci fi nga xam ne rek moo di tunnel ba ba Ousmane Sonko jugee tribunal. mu ni. moom dafa koy laaj parce que looloo déedéet ma GIGN. déedéet waaye dañ ko ciy laaj ni mu ko gisee. ni mu ko gisee. dama koy laaj ni mu ko gisee ak lu mu ci lu mu ci xalaat. daa koy loolu laa koy laaj. xam nga ni moom lu mu ko laaj mu wax mu tontu mu tontu déedéet loolu nga ma wax. da ni lu mu laaj. lu ma ci laaj day tontu. ma lay laaj Ousmane Sonko. mu sell mi. mi nga xam ne seen place bi moo ko jël léegi si wootoo leen moom mi nga xam ne bës bi moo ko jël jël ko yenn ko téye ko ci loxoom bii di def li ko neex déedéet ko pose dama bëgg mu wax ma ci waaw mais laaj ko rek ni ay question yu leer nañ la fi wax léegi laa bëggoon nga wax ma ci loolu xam ci loolu xam nga bu bees bun dee danoo ñëw ci plateau bu yànj bi macha allah ngir waxtaan danoo bëgg nga laaj ma ci li nga xam ni xew na ci pénc mi réew mi waaw déedéet loolu ci penc mi la. loolu ci penc mi la dama bëgg rek xam nga yow. man moom kenn du ma saagalu. de waaw da déedéet kenn laaj laaj ma ci laaj ma ci gerte mbay mi déedéet. dégg léegi bu duggee foofu wala nga laaj ma ci. da bëgg ñu saaga ndox mi ak dégg nga maam kii bi nawet bi nees koo war a préparer ba inondation du am sedd bi. <laughs> laaj ma ci sedd bi. waaw ak. Euh, fu ca kii toll. léegi euh, kon dafa da nga fa bëgg a da nga fa bañ a wax léegi nan nga gisee ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mu sell bi démb kàddu yi mu yëkkati ci li nga oh, xam ne rek waa voilà démb la mu yëkkati ci li nga xam moo di euh, fa. moustache yi dina nekkoon di waxtaan kàddu yi mu yëg dina rek noo ko gis du ma wax kàddoom yaa ko déglu li ci nag ma ko seetaanu ma ko di nga wax di ma kàddu yi mais nag yow ma ci ci réew dama la ko laaj ci mbay mi duma la laaj li ma la dangaa ñëw yow dama posé tracteurs yi ndax ñëw nañ wala ñëw ñu euh, waaw gerte gi fu mu toll gerte gi daaw waaw nga ni gerte gi fu mu toll ndax chinois yi kii Sonacos loolu laa bëgg nga laaj ma ci laaj ma laaj kii waaw laaju laaj yu normal waaye bu li ma la laaj ci Ousmane Sonko kay war nga cee mën a wax sax bu dee tuuti tuuti ñu xam ne nga ciy wax tuuti dangaa ba ñu saaga la duma ci dugg duma dugg ci loolu xam naa daal laaj ma loo xam ne bii boo ma ko laajee ma mën koo wax mu nekk lu leer. léegi Mame Mbaye Niang ba kii Prodac gis na ko. boo ca duggee da ngay tudd kii Sonko wóorul tuma tuma too tudd. léegi troisième mandat bi nag bu président Macky sàll bi. waaw waree su koo def. ah Macky sàll mbërta def troisième. mandat déglu ma nag. waaw ah, ah. taxaw ne day amal loolu dee su ko nangu. jaral na nu joxe lii. sunu seen bakkan bakkan jaral ah d'accord duñu ko nangu. Ousmane Sonko nee na. <laughs> Ousmane Sonko nee na. dafay woote mi meeting te nee na mbooloo mu bari la bëgg lan nga gisee noonu. laaj ko moom mi koy woote nu mu ko gisee waaye man wax dëgg fa yàlla di ma ko laaj loolu caaxaam. yow xanaa nag yow li tax nga bañ wax ci Ousmane Sonko. Macky. waxuma Macky dafa war a xam ni tudduma tudd Macky. Ousmane Sonko laa la wax Ousmane Sonko mi yee mi téye affaire yi nii ti loxoom laa bëgg nga wax ci waa nekk chef d'opposition merci. dama ci laaj ma. waaw ah, Sonko kay. déedéet doo ko laaj man naa la laaj. Sonko ay a tontu démb ngi woon meeting collègue. kii koor kii ginaar yi ndax dana doy wala déet du doy. loolee mënees na. koo laaj temps temps jën daa bëriwaat déedéet jën. jën ah, lu waral loolu. waaw xam nga déedéet déedéet déedéet Amar bu ko wax foofu. déedéet bu ko fi dugg foofu doo ko dugg déedéet Ousmane Sonko lañ fi wax après duñu wax ci jën yi. jën yi intéressé ñu ndax am na ñu mu ñor bu dee toggoo yow am na ñuy togg waaw lacrymogène yi yu bees yi. dégg naa dañoo yor ko ci lacrymogène. lacrymogène yama jotoon na ñam fële ba dugg RTS. dégg naa bi dañ koo gën a doxal économie bi. parce que vinaigre bi dégg naa usine ba ma dégg. vinaigre baa ah, loolu économie la. kii boobu oui ko dem Ousmane Sonko. mais gis nga jën sëñ bi. li nga ca wax. wuy ba méga bité bi di nga dem. buñ ko seetee. mooy gis nga ceebub jën waaye euh, bété gis nga dem Ousmane Sonko ni mu def ci meeting bi mu taxawee ak nit ñi leen yuuxoo dem nan nga gisee loolu maa sa xol feeñ na ci. ku muy laaj. yow waaw sama tur la dégg de moo tax mu def ne man nga. Euh, Mamadou Diop. Mm. démb Ousmane Sonko ba mu demee fi nga xam ne moo di ca méga bi meeting ba démb na. yaa ngi bëgg a rejoindre yeewi yeewi yeewi askan. du doo moom kay doo loo ko wax doo ko tontu. ah kañ kii laaj na ci jën yi. jën yi soxlawul ko fi mu ne actualité nga wax danga ni. xam nga yow da nga toog fariñ bi mi fu mu toll. da nga toog kii da nga da nga gi ak mburu déedéet xam nga yow da nga commencé toog nuyoo gun la xam nga nuyoo gun la. waaw nga dugg ni ma loo ma laaj dama la ko wax. te day leer nañ ma laaj ci économie. ma laaj la ci Ousmane sonk mi nga xam ne te nee na sax wuyu ma euh, Mamadou Diop. Hmm. <coughs> Mamadou Diop Ousmane Sonko nee na li tax ñu dugal ko ci oto bi nee na li tax ñu dugal ko ci oto bi nee na dafa amoon ay ministre yoo xam ni doo wax. man de li tax mu dugg ci oto sama yoon newu loolu moom duma ci tontu. waaw mu naan dafa am ay ministre néer bi lay wax ministre. <laughs> ay ministre wax na ministre dugal du du wax na ci. ministre bi fu mu nekkoon ah ministre ah d' accord ministre ma ah, xam naa di yàq wax. Ah, déedéet ah, non non kii moom non waxuma. non suka barke rasulilah rek suka ak su kaa ministre nga ne ministre. nan la nga tudd nga ne. ministre ministre tëkkuñu Babacar Diagne di tëkku yoo. Ah, mi ah, kaa nag kaa war lii moom mën na cee jël licence. kan waaw li nga wax nii. mais <laughs> licence ban. ñu wal fa jëlee nii. ah jël. ah waaw li nga wax nii. amul bu ci Babacar Diagne jëlee licence bi. Ah, ah man lan man maa ko yow la kay. am problème waaw am problème. su kaa tëjee nag yow nga bu baax. ci laa nekk ni ci yoon woowu tëjal tëjal ne waaw su kaa tëjal ne ci yoonu caaxaan boobu dëggantaan ci laa ne pis naa la xool naa la amul problème parce que a wooy càdd de bu tëjal <laughs> bàyyi ko càdd yow it nag ah, bu ko fi waxaat mu bañ